daje bi dafa nekk daje bu am solo ndax si euh, ñetti poñ la benn bi comme bu ñuy autorisé mu dugg si ville bi la ak ay virement de crédit yoo xamante ni ay dépenses yu ñuy organisé waat ak benn projet bu ñu PISA euh, bi nga xamante ni waa PNDL ñoom ñoo ñu ko indil bu nekk projet bu am solo pour ndaw yi pour pour tënkee de façon globale euh, autorisation spéciale bi dafa nekk loo xamante ni yoon moo ko prévoir. maanaam bu fekkente ni da nga xayma yow li ngay soxla si njëlbeenu at bi euh, si xaalis bi dugg wala liy génn bu dee liy dugg dafa yokku day nekk loo xamante ne balaa nga koy jot dangay am autorisation spéciale conseil ndax conseil bi moo voté woon budget bi jox ko maire bu mu doxal ko bu waree am beneen koom booy xayma wuñ ko woon te mu yokku si foofu aussi conseil bi mooy autorisé waa maire pour koom boobu dal dugg looloo waral bi nga xamante ni Sococim Euh, si li nga xamante ni moom la ñu war a jox ñu xalaat ni am na lu si yokk lu ma téeméeri million ñett dañu ne kon dañu xoote conseil municipal ñu autorisé waat mais pour xaalis boobu daal di dugg dugg na tax ba pare mais pour ñu mën si def dara il faut que véritablement euh, ñu am autorisation conseil municipal conseil municipal rek mooy voté dogal lii dugg ak lii yéen bàyyi maire mu doxal ko donc bu ñu mën a jël loolu yokk si ni compte su ko siñ nga xamante ni yaa gën a tëngee yaa gën a lëkkaloo tëngee xaalis boobu nag du maire bi moo ko xayma état bi moo ko xayma waa impôt ñoo ko xayma daan lii la su ko war a joxe donc ñu bay rafetlu di ñaan rek mu yokk parce que li war a dugg tëngee war na ëpp loolu jógee si suufa so so mais su possible ku yàgg la liggéey ak tëggee la li ñuy ñaan rek mooy lu mel nii di gën a gën a pour ñu mën si prendre en li nga xam ne li mu warloo maire bi si wàllu fonds de dotation ndax moo moo yayoo woon régler yenn mais daf si yenneeku lu ma juróom-ñeent daal ko jagleel maire yi si yoon nag ñu ne lu ma si yenneeku rek la mu si daan def da koy jox koom yi da koy jox gox yeeg gox muy maire yi mais si li xayma woon ni moom la ñuy jox si wàllu woowu mm-hmm. dafa am lu si yokk lu am solo loolu tamit ñu def ko autorisation spéciale parce que pour loolu yokk dugg il faut que ñu def autorisation spéciale lépp nag ñu tasaare ko si wàllu virement de crédit ndax sa doxal yi moom budget yow mi nga xam yaa koy doxal muy mais da ngay ni am na loo xayma woon ni mooy ñëw te ñëwul am na loo prévoir woon na dépensé mu tuuti wala mu ëpp yooyu virement de crédit day tax ñu rectifier ko daal kii te loolu day loolu moo waraloon suñu daje tey ñu def ko si anam mu am solo lépp lu ñu fi voté ñëpp ko boolee vote mais ambiance bi nga xam ne moom lañ ko am mooy jàmmoo booloo jëm tëngee teg si kanam maanaam def euh, ñu ñu préfet ñëpp rafetlu ambiance nga xam ni moom moo am tëngee te euh, sous le euh, dañ fa créé conférence des maires ñetti maires yi nga xam ñoo nekk tëngee ak maire de la di daje di waxtaani seeni jafe-jafe rafetlu tamit le fait que maire jël salaire maire yi ñetti maire yooyu di ko di ko di ko di leen ko fayal lépp pour pour pour pour permettre véritablement ñoom ñu mën a def yeneen liggéey mu jëriñ askan donc loolu nga xamante ni moo fi am tey ñëpp rafetlu ko devant le public ñu koy sant yàlla di ñaan rek véritablement li nga xamante ni euh, moom la nit ñi di xaar si conseil bi ak le maire. Il y ñu la def de faire ce qu'on appelle des autorisations spéciales pour accepter eh, l'entrée de ces fonds-là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand véritablement dans le cadre des patentes à payer par la SOCOSIM, nous avons constaté le doublement du paiement prévu, le doublement de la patente. On devait recevoir un milliard, mais il y a un suppli de 503 milliards ce qu'on doit euh, autoriser aux, maires de, le recevoir, parce qu'effectivement, c'est le conseil qui autorise l'entrée des recettes et la sortie des, des dépenses en langage profane. Donc voilà un peu ce qui a justifié euh, cette autorisation. De même que le fonds de notation, parce qu'initialement, dans les prévisions, et, on n'avait pas prévu un montant aussi important de 115 millions. C'était moins que ça. Donc puisqu'il y a un surplus là aussi, il faut une autorisation du conseil municipal pour un peu véritablement permettre la, rentrée de ces, fonds-là euh, au niveau du trésor sous la responsabilité du, maire. Euh, donc cela nous a valu véritablement un cumul de près de 600, euh, 600 euh, et quelques, et quelques millions, et, et plus exactement, plus exactement 618 millions 480 000 francs. Euh, véritablement, cela constitue un montant assez important qui permet à la ville de pouvoir véritablement faire d'autres dépenses supplémentaires pour prendre en charge les dépenses que, euh, telles que véritablement euh, les euh, euh, tout ce qui est lié au désencombrement, au curage des canaux, nous avons besoin d'engins lourds, de tractopelles, il y a aussi les, frais de fonctionnement, il y a l'acquisition de terrains de construction, pour permettre à la ville de pouvoir disposer euh, de, bâtiments, parce que nous n'avons pas à proprement parler de terrain et de, de foncier à l'office. Donc, toutes ces dépenses entre dans le cadre véritablement d'accompagner la réussite du plan d'action d'urgence que nous avons initié et qui tournait autour euh, du curage des canaux à ciel ouvert, de l'éclairage des boulevards et du désencombrement. Cela a nécessité d'autres dépenses supplémentaires que nous avons pris en charge avec véritablement cette autorisation sociale.